ba ñu togg ko ba mu ñor ba nga xam ne li nga bëgg dañ koy am ñi nga xam ne ñoom ñooy tóoro yi ñoom bu ñu xoolee ñoom aussi lucidité boobu nga xam ne bélier yi am nañ ko nekk na loo xam ne jàppale na leen ba ñoom ci seen jëm bopp mbir yi nga xam ne ñu ngi si taxaw wala ñu nekk loo xam ne dañ si dox loolu it nekk li nga xam ne dinañ ci am liñ ci bëgg yi ñoom bu ñu xoolee seen i mbir dañ gis ne organisation bi nga xam ne ñi ngi ko doon def wala doon ko am mu jëmaat ci seen dund parce que fan yi yëpp dañu xawoon dispersé wul loolu nekk na mi ngi commencé di porter ci seeni fruit donc loolee di nekk loo xam ne également lu baax baax la loo xam ne fii ñuy dem ci euh, kanam tuuti résultat yooyu nga xam ne ñi ngi ko doon xaar dina nekk loo xam ne day ñëw cancer yi ñoom dañuy nekk ñoo xam ne bénéfice yi xam ne ñu ngi ko am sur le plan professionnel wala boog sax ci xam ne am nañ ko seen diggante ñoom ak euh, nit yi loolee loo xam ne ngëneel lay doon sauf que rek mooy cat bi mooy ci wàllu vie sentimentale bi maanaam ci taxawaayu mbëggeel bi dina am tuuti lënc lënc rek mais dafay nekk loo xam ne c'est passager donc jarul ñu ci am ay xel ñaar wala ay lënc lënc ñi nga xam ne ñoom ñooy lion yi ñoom dañ nekk yoo xam ne rencontre yi nga xam ne amoon nañ ko ci semaine yi nga xam ne passé nañ ko dafa nekk ay rencontre yoo xam ne yu baax lay doon parce que actuellement nii ñoom seen ñoom bopp la waxoon ak nit ñi tënkoon ko signé woon ko wala bindoon ko dafay doon loo xam ne ñu ngi ciy commencé di ci am li nga xam ne ñu ngi ko ci bëgg vierge xam nga ñoom vierge yi euh, boo xoolee semaine bi yëpp jooy seen affaire doxul mais nag à de tey jii vendredi jëm vendredi bi ñëw wala semaine bi ñuy jëm nii sax dafay nekk semaine boo xam ne bu am solo la boo xam ne buñ ci taxawee dem ci seen diggante ak nit yi loolee dafay nekk loo xam ne luy baax lay doon balance yi ñoom cat déception dafay fës lool ci seen affaire lan moo ko waral mooy ils ont voulu jouer avec le feu malheureusement ils se sont les doigts loolu nag dafa nekk li nga xam ne ñoom ñoo ko def mais bu ñu xoolee ci kanam tuuti loolee dafay doon loo xam ne luy ñoo jaxle parce que un chat échaudé craint chaude dañu nekk loo xam ne ñoom dañu ci def attention ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi ñu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne énervement bi nga xam ne ñu ngi koy am temps yi dañu nekk sur les nerfs donc malheureusement baaxul ci ñoom parce que dañuy ñëw entamé benn discussion boo xam ne il faut ñoom sérénité am dal donc bu fekkee ne énervement boobu nekk continuer ak ñoom loolu nga xam ne dañuy dem discuter si scorpion yi wala mu nekk un échec donc nañ def attention baax ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaire yi mu ne ñoom li ñu leen di conseillé tey mooy sur le plan professionnel liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy am taxaw si dem ci dafay nekk loo xam ne luy ñëw jàppandi lay doon donc du coup bu ñu amee ay projet nañ ci bu dugg ci parce que dafay nekk loo xam ne luy baax Capricorne yi ñoom il faut ñu mettre de l'eau dans leur vin parce que li ko waral mooy euh, perspective yi nga xam ne dañ ko am fugg bi nga xam ne dañ dañ ko dañ ko dañ ko démarré nii nekk li nga xam ne du gën lay doon coow par contre ñoom dañuy nekk ñoo xam ne dañuy déglu ay conseils conseils yooyu ñuy déglu nag moo leen ñuy dimbale waaw loolu dafay nekk loo xam ne lu baax lay doon verseau yi ñoom ñooy signe bi nga xam ne avant muy mujj la ñoom dañuy nekk ñoo xam ne franchement envie bi nga xam ne dañ ko am pour mun a doxal ko seen àdduna dafay nekk loo xam ne luy sotti lay doon mais d'habitude une fois n'est pas coutume tey jii nii ñoom dañuy def ay concessions liñ doon bañ dañ koy nangu donc loolu dafay nekk signe bi mujj bi nag moom mooy euh, poisson yi donc ñoom dañuy nekk euh, nit ñi nga xam ne euh, dañu destabiliser woon temps yi yëpp mais déstabilisation boobu dafay nekk loo xam ne mi ngi ñëw jeex ñuy entamer un nouveau départ di entamer di franchir de nouvelles étapes loolee dafay nekk loo xam ne Joyce luy baax lay doon les plaies yi nga xam ne dañ ko amoon ñu ngi koy penser ñu wër. ah c'est

sant naa la gërëm naa la yow bala ma mën a wax yaa ma tey doo wax ma lay wayal naa la teen yaay dinaa la teral sant naa la gërëm jéggalu si li ma tablu yàgg la te woonu ah, On aime tous nos mamans, nos mères Ce sont elles qui nous ont porté 9 mois dans leur ventre. Et franchement, j'ai l'habitude de dire que le paradis, mon paradis sur terre, c'est sous les pieds de ma mère. Parce que franchement, tant qu'elle me donne sa bénédiction, je vais conquérir le monde sans souci.